Baye Sayer Mbay ataala allahu umra wa baxaahu fina yàlla yàlla may ko fan wu gudd te bàyyi ko suñ kanam di nuyu kilifa yi nga xamee si nii ñoo teew ci jotaay bii gis nañ fi suñu wejur Baye Abdou Salaam Mbay mu maam Cheikh ibraahima Mbay ak jëmm ji woote bis bii muy bàyyi Sëñ Mor Mbay mu maam sëñ Aliou Mbay mu maam sëñ Mor moom maam Cheikh Ahmed Kabir di ci tegit bàyyi sëñ Mor Mbay ibnu Cheikh Yusufa ibnu maam sëñ Mor Mbay ibnu maam Cheikh Ahmed Kabir di nuyu njabootu gi nga xamee si ne daje nañ fi te bis bi ñu tuddee ko Baye Saer kon Baye sëñ Mor jël na bis bi tuddee ko woy juram kon Baye Abdou mi ngi ci jotaay bi ak sëriñ Yuusu bàyyi sëñ suñu wayjurit seen naa alim bàyyi Aliou Mbay muy bàyyi Badar moom suñu wayjur maam sëñ Njaga Mbay it mi ngi ci jotaay bi te lii bañ ko sosee ba nëgëni si yaakaar naa ni ña ko sosoon mën nañ ni ca la bokkoon sëñ Xaadim Mbay teew na ci jotaay bi kon waaw bàyyi ma mbay coro mi ngi ci te dafa mel ne sëñ Ibra Fall mbay agsi na léegi ak sëñ Bada moom bàyyi sa yar kon jàpp nañ ni waa kër maam Cheikh ñii ñuy fi tudd rekk wa war nañoo yóbbaale yeneen mbokki taalibe yi bis bi nag sabab bi waxoon nañ ko ndax dañ ni laa tafaalu shay'an bi xayril isni fal isnu shartun fi xabuli sha'ni bu leen def dara te tegu leen ko ci ndigal bis bi li tax mu agsi fii ndigal moo ko fi yóbbu ndax waa daayira shabbaani ahlil fadli wa tawfiixi mu massikiina bi sëriñ yusufa mbay daayira bi nga xam ni mooy daayira waa kër sëriñ yusuf ñoo jógoon am yéene dem siyaare pete Ali Ngunta bi suñu maam jóge woon ñi am yéene bu ñu fa jógee ñëw siyaare si bàyyi bàyyi sëñ Mor Mbay mii fii ci pete bañ demee ci sëñ bi sàkku ndigal ci moom mu jox ñi ci ndigal ñi jël benn poso dem ca pete Ali wàccee fa benn kaamil jóge fa ñëw siyaare si bàyyi sëñ Mor fii loola bàyyiwuñ ko bàyyiwuñ ko ba bisu tey jii kon ci ndigal lañ ko tegoon kon taalibe amul lu ëpp ndigal kon bis bi loolu loolu mooy sabab bi sababu bis bi li ko indi moom moom ci boppam moom bàyyi sëñ Mor bis bii sosu ko ay taalibe ñoo sosoon ne war nañoo ñëw fii saafoonteeg moom siyaar mu ñaanal ñu loolu mooy ni bis bii di ci fàttaliku rek la nit yàlla boo xam ne lillaahi xawmun isa xallu bi manzilatin xallati nadaa wa allat fil jawwi anwaaru tashaaxu kullu ardin yanziluna biha ka annahum bi beqaay lay am taaru mu ne eskey yàlla suñ borom am na ay jaam ay gaay yu tedd seenu teraanga ak seeni daraja ak seeni martaba ak seeni wilaaya ak seenu mbaax ak seenu tedd nga ci yàlla suñ borom may na leen ne pàkk bu ñu wàcc ci àddina day mel ne suusu bekkooroon suusu bekkoor suusu toog lu yàgg tawul nee na am na jëmm yoo xam ne suñ wàccee ci pàkk yooyee day mel ne taw bu sóob day mel ne ab taw taw gi nag mooy lan mooy yërmande yàlla xéewalu suñ boroom lu fa waay ñaan mu nangu nit ñëpp di taataan leer yàlla gi moo tax mu ne lillaay xawmun isa xallu bi xal la day daal di wàcc adnandaa ab tab ab taw wa waxallat fil jawi anwaaru am na ñoo xam fu ñu wàcc rek suñ borom day yabal malaaka yi ñu ubbi asamaan jël leer yàlla gi sa mbërtal ko wàccee ko mu tiim pàkk yooyee tasaaxuhum kullu ardin yanziluna biha nee na yooyu su suñu romb rek su soosee da leen di taataan ak di leen tokkamti ko ngir bëgg ñooña toog foofu ka annahum bi bexaahi laay am taaru nee na gaa yi yàlla yooyu daal dañoo mel ni ab taw ci pàkki suufi am na jëmm yoo xam si ne ni ni ndox di def ci pàkk suuf ñoom noonu lañuy def ci pàkk yi ci leerug yàlla loolu shaayir bi ko wax ab naar sérif la dëkkul Sénégal bayit yooyee di dox di dox ba agsi ba agsi ci maam Cheikh Ahmad Kabir radiyallahu anhu mi wéy juru maam sëñ Mor Mbay maam sëñ Mor Mbay di taaw ci liñ gën a ci li gën a siiw daal wala maam Modou Alima ñi ni moom moo taawu maam Cheikh waaye maam sëñ Mor Mbay nekkoon wéyjur di maamit ci ñii di di bàyyi ci ñii kon jëm yi fii mën nañ ni njabootoog maam sëñ Mor Mbay ñoom ñoo woote bis bi waa kër maam Cheikh it wuyu maam Cheikh daal ni isa laqitahum aw kunta zahiruhum bi yumnihim faaraxat ka dëhru aw saaru loolu la tax ñu ko mooy baatu ziar bi indi baatu ziar bi ndax jëmmi nit yàlla jee moom da doon li xaw mun isa xallu bi manzilatin xallati nadaa wa allat fil jawi anwaaru tashaxum kullu ardin yalziduna biha ka annahum bi beexaayi lay amtaaru moom dafa wax dara darajey poop nit yàlla yooyu nañ toll waaye maam Cheikh da caa ne soo leen siyaaree wala nga dajeek ñoom ci bark bi leen yàlla defal ci ngay tax xaw àddina ak alaaxir ay bàkkaar kon isa laqitahum soo taseeg ñoom aw kunta zahir wala nga jógee fu sori di yéeg di wàcc yor sa addiya ñëw ba agsi jox ko ko siyaar nee na faaraxat ka dëhru aw saaru tàqali ko nga ay bàkkaar ci àddina kon yaakaar naa loolu ku ca yemoon ab ziar mata mata fonk mata bëril nee nañ bayit yooyee di law di law maam Cheikh Ibrahima Mbay bi mu jotee bayit yi mu garde lan naaru siri ba wax li lay xaw mun ak li maam Cheikh wax isa laqituhum maam sëñ Fallou bi mu ñëwee kër maam Cheikh mu wan ko bayit ya naar ba wax ak li maam Cheikh Mat Kabir wax mu jox ko xalima maam sëñ Fallou de is bi ziyaarati talxaa kulla makrumatin wa yantahi bi liqaay alfaqr wal aaru is bi ziyaarati siyaare gi ngay siyaari sëñ bi talxaa ci ngay dajeeg kulla makrumatin bépp teraanga bépp garaat wa yantahi bi liqaayi alfaqr wal aan nee na jëmm yooyu ku leen siyaare walla nga dox ba daje ak ñoom ñaar doot la dalati ci àddina alfaqru wal aan alfaqru mooy ñàkk wala aaru mooy gàcc kon siyaare ab sëriñ siyaare ko nee na dana waral nit ñi nit kii siyaare ñi damm xalim bàkkaaram dana waral kii siyaare bu fa jógee am lu nekk ci poosam dana waral kii siyaare bu fa jógee gàcce du ko dal maam si ibrahima mbay daal cee teg ne yaslubuhum kullu man xad kaana zahirahu an walidayhi wala tadduhu awtaaru wa bi ziyaarati min anwaaxil mahlakati tanju kazaaka bi liqaayka taatikal asraaru kon bi mu ne yaslubuhum dana dem ba fàtteloo dana rékki kullu man xat kaana zahirahu an waliday nee na dama dem ba sax fàtteloo la sax ay wayjur ngir cofeel ak bëgg ba fàtte sax say wayjur waaye nag wala tadduhu awtaaru boo fa jógee nee na siyaare gi nga siyaare waa ju baax boo fa jógee nee na dootu amati aajo ju yàlla dul faj aajo ju yàlla dul saafara doo ko amati waaye nag wa bi siyaarati siyaare min anwaa'il mahlakati tanju nitu yàllaa ko wax de bayit yépp fa mu tàmbalee ba fii ñi ko wax ñépp ay wëlli yàlla lañ wa bi siyaarati min anwaa'il mahlakati tanju nee na képp kuy siyaarati siyaare lépp loo dégg muy ay alkande ak ay musiba ak i ay balaa ay gàcca gàtt fan gu ñaaw loolu moom noppi nga ceew min anwaahil mahlakati tan ju waaye kasaaka bi li xayka taatiikal asraaru am na ñoo xam-xam bi am jële wuñ ko ci njàng déedéet nee na ci liñ ko jële mooy siyaare ji waaju baax mu ñaanal la siyaare ji waaju baax mu ñaanal la taatiikal asraar kon bayit yi naaru siri ba waxoon muy lillaay xawmun maam Cheikh ne isa laqitahum maam sëñ Fall ne is bi ziyaarati maam Cheikh Ibrahima Mbay ne yaslubuhum maam sëriñ Sàmbay suñu mbër ma ne tuuba li shaxsin mutian amrahum abada isqat xawaane la maa yeex waa texe sëñ wax nee na texe dugg àjjana li shaxsin ñen jëmm joo xam ni mutian amrahum abada nee na jëmm ju jóg sa lépp nga jël ko jox ko sëñ bi mu di la xëyloo di la gontloo di la bayloo di la di la yettloo ah tuubaali sax sin mu tii añ amrahum abada xam nga bu waxee dafa am leneen lu wax ci biir mooy bi mu ne tuubaali sax sin mu tii añ amrahum abada isxat xawaa nga ne ko lu tax mu ne is xat xawaa day na maa eexuwaa wa ne ko kii may ñëw di summi sama mbaxana ba ma duggee ci dëkk bi ba léegi da nga sax aw ma mbaxana mbaxana maa ngi nii sama biir pos dafa am lu tax yaa ngi dégg nee na lu tax nga ne is mu ne is xat xawaa ki ngay dem ba wàccee sa bopp ci moom sippi sa dara ci moom xat xawaa nay la maa yahwaa wa yaxtaaru dafa am lu ñu doon wut te moom da koo am li mu doon wutee yàlla suñu borom da koo am kon kooko ku wàccee sa bopp ci kanamam ku suufeel sa bopp ci kanamam te manta wa manta waadaa naa la nay la sharaf la maam Cheikh waxoon ku wàcc rek da ngay yëg ku toroxlu rek yàlla yëkkati la kon ba tomb boobu jeexee beneen tomb bi mooy li maam Cheikh Ahmad Kabir waxoon ne bi mu sàkket sàkketloo kër gi làkku dóor dóor bañ defar ko ba pare ba mu ñëwee di ko wër la wax bayit yi tàmbalee fa nga xamee ni nii fa lañ tàmbalewoon woon làkku dóor dóor ba dóor dóorum ngeer jamono jooju bu doon suñ jamono jii mooy ay miiri léegi miiri léegi yii booba kër gi làkk ay ngeer lañ daan dagg di ko sàkket làkk dóor dóoru ngeer ba koy wër dafa tàmbalee fañ tàmbalee woon ne inna saadata fi uqba liman tabia sabila man kaana lirrahmani qad xashaa inna alwasilata lilmatlubi fi xidamin wa basli maalin wa jaahin lillasi jamaa man kaana li cheikhi kal mamluki naala alan fala takun waahinan fi xidmati lwuqaa bi muy wër wër liggéey bu sell booba mag ñu liggéeyoon keroog la doon wër di ko wax inna fi uqba liman tabia sabila man kaana lirahmani qad xashaa inal wasilata lil matlubi fi xidamin wa bësni maalin wa jaahin lillazi jamaa man kaana li cheikhi kan mamluki naa la olan fala takun waahinan fi xidmatil wakaa mu ni texe ñeel na ëllëg ki jóg topp ki jóg te topp liman tabia sabila man kaana lirahmani qad xashaa xam nga yoonu ñan mooy ki nga xamee si ni nii ñi jëmm ñi nga xam ne dañoo toroxlu ci yàlla seen borom te waa kër maam Cheikh nag dañoo toroxlu ci yàlla ndax yaakaar naa ni baas bii bu ñëpp rangoon sëriñ sëb ñëpp rang doo fi xàmmee fii kan moo fi sëtu maam Cheikh sol du ko wane seenu toogaay du ko wane dara lu koy mën a wane nii ci biti moom mënoo koo xam te boo fekkoon ñiy lekk mënoo koo xàmmee boo fekkoon ñiy naan mënoo koo xàmmee ci jëmm nii moom mënoo xam ne kii moom sëtu maam Cheikh ndax duñ ko wane ci biir nit ñi ah xat xasaa noo mën a toll boo ñëwee ñu yëkkati la nee la toogal ci kaw kon nag noonee ñu wàccee seen bopp ci misaal rek daa mel ne am na am na ñu ko fekkee woon sanq ci biir néeg bi muy bàyyi sëñ Mor Mbay mu moom bàyyi euh, euh, Sayer Mbay sànq bi mu ñëwee ci néeg bi fekk man maa ngi toog ci kaw lal bi ma bëgg a wàcc mu téye ma euh, bul wàcc toogal ci kaw ma wax xaw mënoo toogal ci kaw te dafa giñ ne ma toogal ci kaw loola mooy tax kenn du leen mën a xàmme te loola moom moo ca dogu kon nag googu yar ak teggin ak wàcc googu ñu wàccee seen bopp ba boo demoon kër maam seex yow mënoo xam ne kii sëtam la wala kii taalibeem la bu lekk jotee ñoog taalibe yi ñooy bokk lekk su naan jotee ñoog taalibe yi ñooy ànd naan su tëdd jotee ñoog taalibe yi ñooy ànd tëdd ba ci jëmm ji toog nii muy bàyyi sëñ Mor Mbay moom Cheikh Youssoufa Mbay jëmm ju ko gën a woyof gisuma ko ndax ak Baye daam Ndiaye ngi nii ànd nañ dem ci benn dëkk bañ demee néeg bi nga xamee si ni nii fi la war a wa war a dallu fi la war a fanaan ki nga xamee si ni nii moom la doon seeti foofu ne ma mën ngaa fanaan ci biir néeg bi ma génn ne ko du ma fanaan ak sëñ bi ci biir néeg bi mukk te sëñ bi kat waxu ko néeg boo fi kenn fanaan xoolal lool. te demoon na bari ni ma muy ñëw fanaan ci biir néeg bi bi sëñ bi war a fa man ko déedéet loolu ku foofu nag ëpp na te ko am yéen a bokk añ bokk reer bokk ndékki tëdd jot ñi la tëddal ci néeg bi sëñ bi nekk kon nag googu woyof ak googu yar ak boobu teggin suñ borom subhaanahu wa moom moo ko def ci ñoom woyof toy dis gann ci biir mooy waa kër maam dañoo woyof toy ci biti nii ba pare dis gann nag ci biir bu maam Cheikh ne ina banu bakri maaruf majjuhum tilaadna al ilm sumal mansabul aali walam yësal xattu minna sayidun sanadun fi kulli dahri kabiri nafsi wal xaali jëmm ji toog muy bàyyi sëñ moo damaa déey sànq ni ma xuusal ma ci maam Cheikh te bàyyi sayer mbay mii nga xam si moom la ko tudde waxal ma ci ay jukkoom waaw sëñ Xaadim Mbay jërëjëf zurman man sixta bi xibaali wuddihi tasdat mahabbatan fi fuaadihi waaw loolu it maam Cheikh Mbay moo ko bind gisita xayran wa kufiita dayran wala laqita ma baqita durra lii maam Cheikh moo ko bind mu ni zur na siyaare ji man ka nga xam si ni wasixta mooy nga bi xibaali wuddihi ci buumi cofeelam alxibaal muy mooy mooy buum wuddi mooy mooy mooy cofeel bi xibaali wuddihi li muy jariñ nag moo ne suuf mu ni tës dët mahabbatan fii fuaadihi siyaare jar na ko de xoolal maam Cheikh nee na bu fekkee ne ki ngay sukk jébbalu ngay siyaare ji moom day tax mu gën laa bëgg ah jour man wa sexta bi xibaali wuddihi tas dët mahabbatan adi fuaadihi jour man tuhib wa in chattat bi kat daar wa xaala baynahuma sahlun wa awaaru laa yamna'annaka bu'dun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawaaru siyaare ko xamoon li ci nekk ku ko xamoon bis boo xëyee suba da nga siyaare kon na fi ñu tolloon ci inna saadata fii uqba man tabia sabila man kaana li rahmaani qad xashaa ki jóg dem fekk ku toroxlu ci yàlla nga dem jox ko sa bopp di ko liggéeyal te nee inna saadata fi uqba liman tabia sabila man kaana li rahman qad xashaa mu ne innal wasilata mel ne dañ koo laaj sëriñ te lii su ko waxuloon mën ngaa umbale sëriñ mooy lan waaye maam Cheikh dafa wax ne inna innal wasilata sëriñ kenn mooy sëriñ sëriñ mooy innal wasilata lil matlubi kii sàkk ngir bëgg a xam lan mooy sëriñ ndax sëriñ dangay ñëw sukk jébbalu rek daal ni jeex na mu ni déedéet am na ay sart yoo xam ne dalaa war sa digganteek moom mu ni inal inal wasilata lil madlubi fii xidamin bankat sa baaraam mu ni da ngay liggéeyal sëñ bi amul ñuy liggéeyal sëñ bi nga ni nga dem tëdd sa kër fii xidamin wa bés li maalin yëkkati sa alal nga jox ko sëñ am na ñoo xam ne lu ne man man nañ mën nañ ko waaye joxe moom bokk ci waaw ah. wala ngay ñëw ci sëñ bi kat ñëw di siyaare sëñ bi leb ab téeméer wala yor ab ñaar téeméer wala nga ñëw ba jub sëñ bi daal di dugg ci broq di xool bala ngaa jaawale kayitu 10 000 yi di ko jox sëñ bi ak 1000 francs yi ah wa bés li maalim léegi dangay ngay séen ku lem ab téeméer jox ko sëñ bi ba pare nag bëggee fas ay aajo yoo xam ne si nii fukki junni saafara léeg-léeg ngay séen ku dem ci ñaan kat ne ko man de ay ñaan laa bëggoon ba pare ne ko lu ma lay jox. te jébbaloo ci mu dem cim ñaankat ne ko maa bëggoon ay ñaan ne ko lu ma la jox mun la ndax man nga maa jox ñeent fukki junni nga ne ko ndax man nga maa muñal fii ak ay fan ah te sëñ bi boo ñëwee ñaar téeméer wala 2000 francs gan ngaa bari wala téeméer xëy na sax moom loola moom yëgu ko yëgu ko ndax benn jëmm daan na wax naan. di tudd benn sëriñ ci kër maam Cheikh ne man day damaa yéem ndax lu ko waay jox xamu loo ko jox rek mu jël dugal ci poosam waaye nag lu waay dugal rek loolu lañ lay joxaat kon nag fii xidamin liggéey wa ni maalin joxe sa alal wa jaahin sippi sa daraja li leen si jamaa man kaana li cheikh kal ki naa la alal wax jooju lu am solo maam Cheikh nee na ku nekk ci sëriñ mel ne ku ñu jàpp jënd la buumug njaam mel ne yow sëñ bi dalaa jënd ba moom la man kaa li cheikh kan mamluki mu ni ku ko def day naa la olan da kawee sag maas fala takun bul nekk mukk waa di doyadi fii xidmatil wukaa ci liggéeyal sëriñ kon mag ñi fi jaaroon yépp lu mel ne maam sëñ Modou Fall Kokki lu mel ne maam sëñ Jaañ Coon ñoo ñëpp lañ rawee mooy ci sëñ bi rek te it mu wax ne moom bàyyi sëñ Modou bis bii mu jël tudde ko waajuram muy bàyyi sayer mbay bu ñu waxee ci ay jukkoom ak taalibeem ak tërbiwu ak tërbiwu ay baayam ak tër tërbiwu ay baayam ba xëy suba di doon maam Cheikh ku ne xam na ni ku fi mbasa toog ci ci ñim fi fekk ndax li mu fekkee ci maam sëñ Mor li lim fekkee ci maam sañ Mor bariwul waaye ñim gën a fekkee mooy la ko tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Mbay ba ci maam maam Cheikh Abdou Salam Mbaye ñu ñëpp ku ci nekk rek liggéey la maam Cheikh Ibrahima mbay ba am ngërëmam liggéey la suñu wayjur maam Serigne Sam Mbaye ba am ngërëmam liggéey la suñu wayjur maam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Baye Jiili ba am ngërëmam liggéey la eh, ay magam ba ci sang bii ak Cheikh eh, Cheikhuna wasilatina ila rabbina Cheikh Yusuf radiyallahu anhu ñii ñëpp ku ci nekk topp na la bi mu fi lii bërki démb la ba muy jël caabi otoom di ko jox maam Serigne Sam mbay fi la fekk ñëpp caabi oto mu yëkkati oto ba joxe xoolal ba xëy suba ñëw di doon maam Cheikh Ahmad Kabir kon yàgg naa toppe tool yi deppal yii lim fi mas a bayee lépp lépp lépp lépp bu ma saan a ñor kër maam Cheikh Ahmad Kabir njaboot gu ñu góor ñi ak bàjjan yi ak sëtaati sët kenn du ko waat xoolal ba mu dalee bay ba nëgëni sii ba mu dalee bay ba nëgëni sii kon kooku wax dëgg yàlla di xalifa maam Cheikh Ma Kabir suñ ko jëlee jël bis bii ñu tuddee ko ko tudde nañ ko delloo na buum ca bay boy ga kon loolu mooy jukkoom bi ci desit sang bi nga xam ne si ni nii bi mu làqu yàgg yàggul muy suñu waaw bisimilah waa nangu leen ñaan fu waay nekk ngeen nangu ñaan wax leen amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin waaw nee na waajuram muy bàyyi Abdou Salaam Mbay nee na ñoom ñaar ñoo maase waaye bàyyi la ci moom mu maam Cheikh Ibrahima Mbay mu maam Cheikh kon kii waajur la ci moom nee na bëggoon naa xaar ba julli timis waaye dafa bëgg a mooy bàyyi Abdou Salaam Mbay mu maam Cheikh Ibrahima bàyyi Aliou Mbay it mi ngi nii ah, di di rakk ci moom mu ànd ak baayam bàyyi Aliou Mbay moom sëñ njaga ndax baayam lañ ko tuddee moom mii waaw rakkam la baayam laat ndax baayam lañ ko tuddee jërëjëf yàlla yàlla teg na ci yoonu jàmm waaw kon beneen tomb beet muy a cheikhuna cheikhina wasina ila rabbina maulana cheikh yusuf radiallahu anhu kooku wax na ni tuuti ñu laal tuuti rek ci dundam kon li wax nii moom moo ni waxal lii waxal lii waaye suñ ko tuddee tudd nañ ab jullit ku ko tudd ku tudd Cheikh Yusuf tudd nga jullit dëgg tudd nitu yàlla tudd nga aarif tudd nga aabid tudd nga aalim aalim mooy borom xam-xam aabid mooy jaamukatu yàlla aarif mooy koo xam ni nii aarif billaahi ko xam yàlla ca la ca yenn ak dundam rek doy na sëkk sëkk am njàng ak dundam doy na sëkk ak ja ak am njàng ndax la lislaam ju set te sell teg gi mu tegoon tànkam ci sharia te wàññiwu ca dara dara dara ak jaamu yàllaam nga xam ne soo toogee ci moom rek dalay jàngal ci dula te dula bindal cheikhuna wasita irab na moolana cheikh yusuf yàlla yàlla dolli koy leer ñi fi bàyyi yàlla nañ fi yàgg loolu te soo toogee ci moom da ngay jàng dana la jàngal loo xam boo demoon ci téere sax pour nga mën koo gis dana jafe ndax damaa mas a toog ci di waxtaan ak moom jàkka ji daal di jekki-jekki di nodd jërëjëf Samb jàkka ji jekki di nodd mu noppi man ma noppi jàkka ji nodd ba daaneel beneen jàkk jël di nodd mu ni ma mën ngaa wax ndax mu benn jàkk noddee ba pare rek yi des yëratul déglu te loolu man xawma ko woon laa koy doog a xam li ma jàng lépp ba ñëw toog ci kanamam keroog laay doog a xam loolu ma te loolu man gisuma ko ci téere te boobu maa ngi toog di wax jàkka ji di nodd mu noppi bi mu ba daaneel keneen yëkkatee di feneen ma bëgg a noppi mun ma buñ noddatee ba pare bu kenn noddee ba nga ko ñi ci des moom bu la neexee mën ngaa kon di xam naa loolu ñi ko xamul bëriw kon nag xam leen ko tey loolu sëñ bee ko génne benn nga noonu ci xam-xam boo xamee si ni nii aarif billaahi moo koy xam bi ci desit xam ngim xamoon sharia ba pare di ko dund ndax dara mën nga koo xam te doo ko dund boo demee fee ci côté njëween am na benn jàkka ju fa nekk joo xam ne jàkka ji buntu sarale la da ngay dugg ci bunt bi génn génn ci beneen bunt ba ci des am benn dëj boo xamee si ni nii dëj bi fi mu nekk da ngay jaar ci biir jàkka ji pour jàll ca kër ga ca des bi sëñ bi ñëwee ba agsi bañ ne ko ci fii nga war a jaar mu ne ndax amuñu weneen yoon wuñ mën a jaari bokkul ci biir jàkka ji jooju teggin beneen yoon lañ ko tànnal mu wëri feneen fu gën a sori ngir ne jàkka li war nit dugg fi mooy dugg fi ngir jaamu yàlla waaye du am mbedd mu nit di jaar di xëtt di dem sëñ bi nanguute jaar ci biir jàkka ji bàyyi daam njaay ngi dugg ci jàkka ji mu ndax amul weneen yoon wu ñu mën a jaari xool noonu mu tege tànkam ci sariya te nekk koo xamee si ne gis nga mboolem jukko yu tedd yépp boo ko bindoon ba mu àgg nga ñëw teg ko benn jukko ju ci nekk rek sëñ bi jeexal na soo jëlee maandu danga naan koo ko gën a maandu amul ñaari nit lu ñu mën a jote kenn ku nekk dañ la déglu nga wax hmm? Hmm? am na ñaari nit ñu ñu mës a jote ci benn mbir kii jël am ndox mu tàng sotti ko kii ñi ñëw daje ci kanamu sëñ bi sëñ bi ne ah nu mbir mi demee kii ne. kii moom ma xëpp ndox kee sëñ bi laaj kee ne ko lu tax nga xëpp ko ndox mu ni moo ma xëpp ndox ma xëpp ko ndox sëñ bi ne ko déedéet jàngoro yi jàngoro yi neew a wane ndax ki ñu xëpp ndox ba wane ne fii lañ ko xëpp ndox moom fi ñu ko xëpp ndox gis nañ ko yow mi wanewul den nag yaa tooñ xëpp ma xëpp ko sëñ bi ne ko déedéet ko mën a àtteel yàlla may na ko ñaari nit luñ jote jote jote bu leen dégloo rek ba déglu lépp rek ki ci nekkul ci yoon wax ko te du ca juum jëm jëmm ñëw na ne ko ah diw dey këram dafa am xuloo ba ña ngay waaj nangu këram gis nga ni maandoo mënoon naa jóg dem rek lay jóg waaye déedéet dafa woo sëñ bas mu ñëw mu ne ko coow lool demal nga xoolal ma nu mu demee ndax man mbiri suuf du ma ci wax mbiri suuf du ma te kooku mbokk mu sës ci moom la mbokk mu sës ci moom ne ko sa mbokk ma day ak diw ak diw ak diw ngay xëccoo nangam ak nangam sëñ bi woo sëñ bas mu ne ko demal nga xooli lool mbiri suuf man du ma ci wax du ma ci wax kon nga xam ne moom ak ragal yàlla am ak maandoom tabe gi nag tabe gi moo ëpp lépp tabe gi moom mu ëpp lépp waaw doo xam fan ngay tàmbalee doo xam fan ngay yem ndax sama maam bu jigéen sama maam soxna Diop mi jur sama baay xëy na suba taxaw ci bunt këram war a dem hôpital pour faju ji sëñ bi génn këram jëm jëm ca bàyyi am satuloo fa daan dem eh, eh, eh, di doxantu di fa toogi ñëw ba taxaw ci bund kër gi daat koy laaj na ko ah foo jëm mun ko man day hôpital la xoolal lool kii di sëb sëriñ génn di doxi ay soxlaam gis yow nga taxaw mu taxaw laaj la fan nga jëm xam na ne day dem te sëñ bi soxlaam la doon doxi sëñ bi ne ko foo jëm mu ne ko ah man de hôpital laa jëm mu ne ko yéegal sëñ bi bàyyi fa doon dem jël oto bi yóbbu ko hôpital bi mu ko yóbbu hôpital mënoon na koo bàyyi wàññi ko waaye oto bi dafa dugg ba ci biir bàyyi daam njaay nii moo ko fekkee keroog ma ne sañoo jàngale ju koy rafet ci moom mu yabal ko ne ko ko ca docteur sëñ bi toog ci biir oto bi dina xaar da koo booleeg moom ne ko demal ca docteur ba mu xool lan moo ko dal bi mu xoolee mu bind kayit mu ñëw duggaat ci oto bi mu ànd moom ba ci pharmacie bi sëñ bi ne ko demal laajte ordonnance bi lu muy jar dégg leen état bi rek yoon moom doon dem bàyyi na ko indi ko ba hôpital bàyyiwu ko mu dugg ak moom ba ci biir yóbbu ko toog ta toog ci biir oto bi moom yor kurusam di wert werd bàyyi yitteem yépp kooku kan moo ko gën hmm? mu toog xaar koo xaara xaara xaara ba mu pare mu àndaat ak moom ba ci pharmacie mu gaare mu ni ko demal laajte ordonnance bi lu muy jar mu laajte ko ñu ne ko nangam nàngam nangam lay yar mu làmb poosam te gis nga li gën a yéeme moom lu mu làmb rek fekk ne dafa mel ne loola bàyyi woon na xel ñeenti junni la génnee jox te daañ ci nekk yeneen xissa yu leer nañ ñi xam ne moom lim li ne woon ci moom suñ borom subhanahu wa taala moo ko def ci moom ba mu demee jënd loola duggaat ci biir oto bi mu indi ko ba ci bunt kër gi mu yëkkati ordonnance jox ko ba pare ne ko tàllalal ma ñaana la sama maam daal keroog dafa jooy kon am na loo bu la ko nit diggee am lu mu la wan fii war naa am war ngaa dal sa xel war naa dal waa kër maam Cheikh Ahmad Kabir jàppewuñ seeni taalibe alal déedéet ñoom ñooy jël seeni alal di ko def seeni taalibe booy xool ñi gën a ñàkk ci ñoom ñoom lañ ñoom lañ gën a bëgg ci ñoom amuñu xejj ak seet ndax ñun ñi ànd ak moom fu ne ñi fi ànd ñoom ñi ñiy dem daañ dem dem ba dugg ci kër goo xam ne si ni nii mën naa ko waat ci yàlla ne man mii ku ma fa bëggoon a fanaan loo du ma ko nangu te sëñ bi fa lay fanaan bàyyi sëñ Mor a nii bàyyi daam Njaay ngi nii na ko nañ fii ba Tamba kër gañ yendu geneen kër ga mu war a dem war faa fanaani bañ fa waree waree dem ay néeg amu fa kër ga demeewul noonu am ku ma ñoddi ñoddi bàyyi daam njaay ba fële bañ génn mu ne ñi ah euh, xanaa da ngeen di dem rek bu ngeen demee nuyoo doog a siwaat sëñ bi ba mu demee dafa fanaan ci kër kon jukko yi rafet yooye ñoom loole nekk ci ñoom booy ànd ak ñoom da nga jàng ci jukko yu rafet ci ñoom ak seeni tabe ba ci bàyyi sëñ Mor Mbay mii nga xam si ni nii tey jii bis bii moom moo ko wootee nii koo ci jël rek ci jukkoom yi rafet man nga mën nga cee fanaan ndax yaakaar naa ne bàyyi sëñ boor bii lii xëy suba di tegu ci loxoom lii xëy suba di tegu ci loxoom ci ci alal su ko doon téye dëkk bépp mën na ko étas te lépp da koy jël dundelewaat ko doomu aadama yi pete gii sabab bi ko fi indi lu ci bëri nettali na ko maam si Abdou Khader Jilaani muy bàyyi jili mbay moo ko woo ba mu ñëw mu ne ko demal pete nga toog demal pete nga toog fa daana wax sax di nettali ne léeg-léeg danaan jóge pete ñëw Louga te dani kon bu mal a gisati Louga léeg-léeg nag booba Louga dafa neex léeg-léeg bu daal di jekki-jekki rek rocciku daal di ñëw biir Louga waaye bu séenee bàyyi jili day daw ñee ne benn bis fekk nag bu toog ci mbooloo mu ne ko xanaa kii di sëñ Mor ayu demal ca pete ga ma la waxoon kon pete gii wéy juram moo ko yabaloon mu ñëw toogoon fi pete nag am histoire li ñaan pete gent ak pete sanc maam Babacar Kóoloo mi nga xam mooy wéyjuru maam Cheikh bàmmeelam a ngi fii fii ci biir pete pete gii fii la ñëwoon ñëwoon fi di jàngale alxuraan ci biir dëkk bi dëkk bi jamono jooju yëngu gi bëri torop mu jege foofu ñëw sanc fii ci guy yii moo tax ñu tudde fii pete sanc fee ñu tudde ko gent te gentul sanc bi looloo ko indi moom fii moom ñoo ko sancal seen bopp kon tàmbalikaay yi kër maam Cheikh Ahmad Kabir bërëb bii la booba deppal amagul sañca guñ deppal waaye fii pete moom lépp fii fii la fii la tàmbalee ba maam Babacar Kóoloo génn génn àddina kon pete moom maam Cheikh maam Babacar Kóoloo mi wajur maam Cheikh fi la newoon maam seex fi la newoon maam sëñ Mor Mbay fi la newoon sang yu tedd yi nga xam ne ak njabootam it ñëpp fii lañ ñëwoon fii suñu maam ñi àndoon ak ñoom maam Mortala ak maam Aljaak suñ maam Aliou ñoom ñëpp fii fii fii lañ laxasoo ci kër gi fii lañ takkewoon seen digg nekkoon ci sëñ ci guy yii kon fii mooy cosaan bi lim ëpp li dun li ëpp ci dundam maam sëñ Mor Mbay li ëpp ci dundam fii la ko def fii la ko def Louga da daan dem rek wàññikuwaat da daan dem rek dikkaat fii ci àll bi fi la neewoon diggante pete ak deppal lim am lépp lépp lépp lépp tey jii ba ila abadin abidin lu ak njabootam am ci àll bi la ko liggéey fanweeri sàq fanweeri at yoo xam ne si ne nii li kër maam si Ahmad Kabir di dunde maam sëñ Mor may seen maam moo ko liggéey fanweeri at kenn waatu ko ñëpp ñëpp a ngi ci biir ay gileem ñoo daan sëf dund bi dugub yi ñoo ko daan sëf di ko yóbbu kër maam Seex gileem yi buñ ñëw buñ duggee dëkk bi dañuy bëmb ñu ni gileem yi sëñ moor yi ñëw nañ ñi ñëw taxaw ci digg digg penc mi ci digg kër gi ba maam si Ahmad Kabir génn ñu doog ko sippi dund bi fanweeri at ba at mu mujj mi maam si Ahmad Kabir keroog mag ña nee nañ ba muy génn kaala gam kaala woo da ko takk ci ndiggam nee na ne waa kër gépp nañ génn xool li doomi aminte jaaga ji indi mamar mi bu ganee woon àddina ci pëliat bi ardo waaw ne bu ganee woon àddina ca di ardo kon maam sëñ Mor Mbay dafa liggéeyal maam si Ahmad Kabir fanweeri at fanweeri at fanweeri sàq fanweeri at yu mat sëkk yoo xam ne si ni dund kër maam Cheikh moo ko yor la ko dal yépp kenn waatu ko dégg naa ñu ne mag ñi daan nañu waxtaan naa ni euh, wërsëgu sëñ Mor Mbay kër maam seex kenn waatu te boobu ñëpp ngi fi ñëpp a ngi fi kenn waatu ci àll bii la newoon maam seex génne am mbaxana waaw nga xam ne li ñu suñuy maam nettali maam Cheikh génne am mbaxana keroog dafa wax ne mbaxana mi bi ma koy jot yàlla saam borom maa ci amoon maa xam sol mbaxana mi daa di jël mbaxana moomee ka indi woon sàq ya muy maam Moussa Kumba jëmb wax ji may wax ci sama maam laa ko dégg Moussa Kumba jëmb mu ne ko mbay musaa ku ma jëmm mu ne ko mbay ba muy ñetti yoon mu ne ko boo demee neel mamar sama taw bu baax ba ne ko mbaxane bi bi ma koy jot ci yàlla maa ci amoon maqaamam sol ko boo demee ne ko tey ji li jant bi tiim di ko nit moo ci am maqaamam mbaxane mi kooku da koo liggéey da koo liggéey kon buñ demee ba ak njabootam tey jii taxawee taxawaay bii kër maam Cheikh ku ko tudd rek da nga tudd maam sëñ Mor ndax ak jëfam kon loolu ak sant yàlla la waaw xam naa ne dañuy julli ji su ñëwee ma mottali tuuti laaj addi yi ma daan laaj comme néewul ci yow it bay boo nga dem sa kër jëlee ko ndax at mu jot ma ñëw toog fii ngeen ñëw jox ma ko fekkaat ma fii ku bëgg nag bu déwénee booy ñëwee fekkaat ma fii boo yoru loo ma jox bu ma génnee bay boo nga dem lépp dañ koy dajale delloowaat ko ci sëñ bi man li may joxe moom mi ngi ma yor kon nag addiye ci day dajaloo fii buñ jullijee ba ñëw danaa jëlaat cinq minutes motti li tuuti rek dajale addiye ji ni ñu koy defee at mu jot ah jébbal ko sang bi daal di joxewaat yëf yi ci des kon ñi ngi waajal julli yi ñi dem ci jàkka ji bu ñu dellu see motti li ci des bismillahi rahmaani rahim yéen a seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul